ñu ngi am mbégte dalal ci matinalu tey bi euh, Bakary Domingo Mané journaliste la di jàngale itam euh, nekk spécialiste wàllu communication politique euh, analiste politique ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay am mbégte wax tey ak waxtaan ak Sénégalais. alors ñu tàmbali waxtaan bi ak actualité politique daanaka sax moom rek la ñuy waxtaanee wante ñu tàmbaleek Idrissa Seck mi nga xam ni déclaré na candidature am ci élection présidentielle bi ñu dëgmal loolu waral ñu bari ci APR. ak Benno Bokk Yaakaar di ko songu lu doxalinam mais ca conseil économique social et environnemental itam euh, ay membre APR bloqué fonctionnement ba ba réunion bu mu woote mujjuta am mais ci kaw loolu yëpp Idrissa Seck euh, wax ay ñoñam bu ñu tontu ba nuppi la am ca conseil économique mu kalaame ci président Macky Sall ñu bari jàpp ne moo président Macky Sall réeroo wuñu wala dañoo dil am ñeneen ñu jàpp ne iddi ci boppam moo war a bàyyi dem seeti leneen gannaaw ba jël na yoonu boppam ngir doon candidat ci élection présidentielle jàngat nga ci def en tant que ku xel màcc ci wàllu communication ak ci politique. man jàngat bu ma def mooy euh, déclaration candidature Idrissa Seck man bettuma parce que euh, ku jàng. Euh, vraiment euh, politique ni muy doxee Sénégal li nga xam ne daal que Idrissa Seck mënul bañ a bokk n'est-ce pas en deux mille vingt quatre parce que koo xam ne daal depuis deux mille sept vraiment mu ngi mu ngi def jéego pour que Sénégal fal ko à la tête n'est-ce pas de ce pays donc pour man amul amul mbetteel d'ailleurs mën naa wax ne au sein vraiment de de Benno Bokk Yaakaar euh, Idrissa Seck dafa wone ne que moom nitu fit la am na fit parce que am na fit bi. Euh, au point que mu déclarer n'est-ce pas sa candidature or ak ah, ñoo xam ne allié allié APR yi nekk si benn bokk yaakaar ñoo xam ne tey dañu bëgg vraiment bedd euh, génne euh, peut-être wala ils sont pas d'accord avec le troisième mandat mais amuñu sansan bi c'est-à-dire amuñu courage wax ko xam nga lu tax amuñu courage wax ko parce que dañuy ragal que ndombo tànk bu ñuy jox euh, président jëlaat ko euh, Idrissa Seck xam na ne en déclarant sa candidature euh, son poste au niveau du conseil économique social et environnemental est en jeu xam na ko mais il fait il fait voilà day day jéem a xool mm. peser le pour et le contre il s'est rendu compte que bon moom daal dafa war a jël responsabilité am donc loolu je pense que courage boobu mun nañ ko mun nañ ko ko nañ ko ko nangul maintenant boo nekkee si biir kuréel mm. kuréel am na ñuy wax discipline kuréel ga mm. discipline bi mooy lan donc da ngeen di da ngeen di waxtaan euh, déggoo ci benn kaddu donc euh, mais est-ce que euh, déjà la question du troisième mandat est-ce que dañ ko e ci biir Benno xaw ma ko xaw ma nam naka la ñu tëralee mbir mi ah. donc est-ce que waxtaan am na seen biir xaw ma ko mais l'un dans l'autre pour man entre Idrissa Seck et ak disons président de la République Macky Sall ah. amul réeroo ah. dañu gisante dañu waxante la preuve wax na ko moom muy defoon conférence de presse bi que yenn saa daf koy xelal mm. day xelal président moo koy xelal mm-hmm. defal li defal lee donc nga xam ne daal euh, a léegi euh, da euh, réeroo amul seen biir mm. la preuve lu tax réeroo am seen biir depuis su fekkee keneen moo defoon déclaration boobu. Mm. ñàkk naa n'est-ce pas postam pourquoi président de la république ba léegi ndax ko ko n'est-ce pas parce que moom xam na xam na lu ñu waxante seen biir. Mm. xam na euh, Idrissa sa lan la représenté euh, en cas de rupture mm. euh, ban conséquence lay am. président de la république ni ñu natt loolu yëpp. loolu moo tax ba léegi deful dara. malgré kon xëy na ñu ànd ak président ñoo xamul xew loolu nga jàpp. non non ñoo xam ñu lu xew mm. lu xew. ñoo xam mm. ñu lu xew xam nga ñooñu daal da euh, ngeen jokk euh, euh, vraiment seen tàngal bi ñu màcc. Mm. donc xam ñu lu ñu xew lu xew parce que bu ñu xamul lu xew dañuy xam ni daal vraiment lii du du mel. parce que su fekkee keneen la entre ñoom moo defoon lii Idrissa Seck def. kenn waxatu ko donc nga xam ne am na lu lu xew seen biir mais loolu yëpp. boo xoolee tu as l'impression que entre Idrissa Seck ak président de la République Macky Sall. Mm. dafa am vraiment jeu jeu ku nekk da ngay day nit ki yaa yaa njomboor. Mm. yaa ngi déglu ma yow yaa gën a donc euh, mais dama ragal si jeu boobu sax. Euh, Idrissa Seck moo gën a perte parce que président amul mu perte ci loolu. Mmh. déjà am na deux mandats même su fekkee nekkatu président c' est pas lui qui perd par mmh. contre ku ku nar a perdre ci bi mmh. mooy Idrissa Seck moo xam ne dafa bëggoon nekk président depuis 2007 ba léegi. yàlla yàlla euh, en tout cas donc donc loolu yëpp lu tax euh, Idrissa Seck ne cet artisan bu leen wax dara bu leen tontu xam nga lu tax. parce que pour moom lu mu waxtaane ak président de la république Macky Sall mooy Dofina euh, euh, président bi certain daf ko wax na ko woon yaa may fii bu ma jógee fii yaa yaa may wut yaa nekk candidat ne fa benn bokk ak mais loolu euh, même Idrissa Seck sax dafa waroon xalaat est-ce que loolu président de la république gëm na ko parce que même su fekkee gëm na ko sax dina am gàllankoor si biir n'est-ce pas benn si ñu bare duñ ko topp parce que Idrissa Seck la loolu moo àla kuleyal yi mm. que ça soit les alliés wala wala yeneen yeneen mm. yeneen personnalité duñu duñu rangé wu mukk derrière Idrissa Seck te Idrissa Seck si boppam bu bu ñu tànnee kenn euh, pour jiiteel n'est-ce pas euh, candidature benn mbokk yaakaar moom tamit du si si kenn donc loolu déjà moom xam na que atmosphère bi nekk si biir benn moom mm. euh, atmosphère booloo xam ne daal daf ko war a pousser moom à prendre ses responsabilités seulement moom dafa jël responsabilité am et président de la république moo si des léegi moo si des léegi mais lu tax ba léegi président di hésité parce que moom xam na que perdre Idrissa Seck mais attends c'est un danger pour mhm. moom waaw alors Idrissa Seck avenir noo ko gisee ci wàllu politique ndax li fi xew yëpp ñu bari jàpp nañu ne euh, crédibilité deseetu ko sénégalais yi moom mu far fee ak mu far fii yaakaaruñu ne danañu ko joxaat bopp ndax noonu nga gisee ëllëgam ci wàllu politique. waaw ëllëgam politique xam nga loolu ëllëg moom yàlla ko moo moo ko yor. Mhm. Euh, lii xew suba gannaaw suba donc yàlla moo xam moo xam lu xew mais quand même ñun suñu xel suñu xel euh, xel bu gàtt mën nañu ne euh, boo jàngatee vraiment Idrissa sa bu ñu xamoon depuis deux mille ba léegi nga gis ne am na loo xam ne daal feeñ na si si mhm. jikkoom jikkoom jikkoom dafa nit koo xam daal. finalement il n'est pas stable mm. maanaam day def lii def la façon sa façon ba mm. dama damay jël benn exemple misaal en 2007. 2007 mm. euh, vraiment euh, nii dañu ne woon sax moo nekkoon moo waroon nekk président de la république tellement que dafa amoon audience tellement que dafa am popularité mais loolu yëpp daf ko saafane le jour où il a décidé d'aller rencontrer soit le candidat le président de la république euh, Ablaye Wade donc jeu boobu la nekk ba léegi à un moment loolu en 2009 après mm-hmm. Gouddougou génne ainsi de suite et ensuite euh, ni ko opposition euh, dugal encore si dans la mouvance présidentielle avec Macky donc boo gisee jikko boobu nit ñi dañu ne kii mënuñ ko wóolu parce que amul benn taxawaay boo xam ne leer na nañ boo xam ne Sénégal yi mun nañ su sukkandiku koo xam ne day day joué donc kooku amul crédibilité donc moom problème bu njëkk pour mun a am aujourd'hui en politique mooy le problème de crédibilité tey mhm. boo ne politique rek mooy crédibilité rek nit ki mhm. nga wóolu ko parce que nu muy jëfee li mu waxee noonu loolu la def mhm. or loolu dafa jafe trop nest nga fekk ko ci Idrissa Seck aujourd'hui deuxièmement euh, vraiment dafa métier dépassé na parce que euh, boo xoolee man dama foogoon sax dafay dafay changer enveloppe mm. euh, dafay changer disons emballage mm. donc xam nga nag homme politique produit la mm. produit boo demee ba périmé rek a changer emballage bi mais ni ma ko gisoon keroog ni mu ni mu doon ah, il est dépassé par le temps parce que su fekkee Euh, li muy doon de alquran di ko tari. Mm. am na xale yu gën a xarañ tey ñu nekk si classe politique surtout xare euh, Ngagne Ngagne Demba. Euh, voilà mm. <laughs> donc ça veut dire que même terrain bu mu doon jouer moom. Mm. terrain bu mu doon jouer moom xale dañ ko fekk foofu battre ko si terrain boobu tey donc ça veut dire que il est dépassé moo tax ma ne la ah ah xanaa mbir yàlla rek. mais bu ñuy jàngatee nii avec froideur ah man daal gis ma chance mu nekk président en deux mille vingt quatre. Mm-hmm. alors ñu wax wax ci euh, Ousmane Sonko ak euh, tekkaaral gi mu nekkee ñu bari doon xaar mu yëkkati ay kàddu euh, ci bañ na ëllëg la pooseem noona la tàmmoon di def mu ne tekk rek boobu ba tey kenn xamul ci lan la ne ñu bari nag jàngatee nu ne noppeem googa yow ban gis-gis nga ci am. xam nga ñun ñu jàng communication dañ ne kumpa kumpa kumpa dafa baax n'est-ce pas boo boo à nit ki nekk ci kumpa euh, parce que boo nekkee kumpa rek nit ñi duñu xam loo xalaat nit ñi xam duñu xam looy préparé yaa ngi dégg da ngeen nekk genre nit yooyu quoi dañ dañ moom santli benn histoire ñu ne benn buur la woon mm. euh, avec ses avec ses ses ses collaborateurs ku nekk dafay ñëw euh, may ma lii may ma lii may ma lii may ma am na koo xam ne dafa nekk bés bu ñu nekk ci penc bi mhm. li may ñaan rek nga defal ma ko mooy bu ma ñëwee rek nga déy ma sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa kii sa nopp mhm. nga déy ma rek mhm. nopp le fait que ñii duñu dëgg ñu ma wax mais le fait ma nopp rek loolu euh, euh, n'est-ce pas loolu euh, kii na ma xam nga lu tax ma wax parce que ku ñu see que buur bi dafa déy nopp wax jooju dañu ne ah kii moo def du tuuti Mhm. parce que lan la buur bi euh, di sëgg di wax ak waa ji lan la ko wax donc kumpa boobu en communication politique dafa am dafa am solo mhm. ou bien en communication tout court mhm. parce que moom la ñu nasaara ñuy wax la communication du silence parce que actuellement dafa noppi nit ñi lan la xamuñu lan xamuñu ko donc nit euh, ñi bare dañu bëgg ñu dañ ñu dañ kumpa boobu moo tax da ngay gis yenn saa ni ngi koy opposant yeneen opposant di ko provoqué mm-hmm. ah ces opposants quoi maanaam camp présidentiel di ko provoqué di ko wax loo euh, pour que mu génne wax mais ba léegi daal mu ngi si tekk tekkaaral mm-hmm. parce que boo ne tekk tekkaaral mooy en communication dafa am solo parce que boo nee tekk tekkaaral da ngay am possibilité mm-hmm. nga gis affaire yi di ñëw bu lu muy ñooy noonu mun nga am le temps d' yaa ngi dégg la moo la mm-hmm. donc da ne tekk rek di xool mm-hmm. di xool affaire di ñëw rek ni koy analyser froidement mm-hmm. mais boo nee tekk taaral en même temps da nga am capacité d' écoute maanaam dangay déglu maanaam boo xam ne daal avec détachement or su fekkee da ngay nekk di wax munoo am capacité d' écoute boobu munoo am possibilité nga gis les choses venir avec froideur nga analyser avec froideur mooy communication di silence mm. parce que daf lay daf lay daf lay daf lay daf lay daf lay jox benn kumpa mm. te dañ lay namm bu boobaa dañ lay ne kii moom euh, daf ñu daf ñu wax loo mais ba léegi daal waxul wala lu tax waxul kañ lay wax donc le fait que même ngeen ngeen ngeen tekk tekkaaral rek day susciter benn une sorte d'envie mm-hmm. ah nit dañuy ne dañ lay soxla déglu te mm-hmm. bu boobaa bés boo décidé wax rek nga xam na wax boobu ça devient un événement mm-hmm. donc foofu la Idr euh, pardon Ousmane Sonko Ousmane Sonko euh, toll et je pense que c'est du point de vue de la communication c'est une excellente bonne démarche. Mmh. stratégie bu baax la alors Karim Wade ak Khalifa Sall ñoom yëgle woon nañu ne dañ leen di amnistier euh, ba ñu mën a bokk ci élection Karim Wade bindu na barki démb nam ko defee woon 2018 waaye ba fi mu ne nii loi d'amnistie bi taxawagul loi électorale bi itam code électoral bi modifié guñ ko te ku ne xam na ne bu ñu yeggee ci juróomi weer dox suñu digganteeg élection dootul mën a ndax gis nga ne ñaar ñooñu ba léegi ñoo ngi am chance su bokk ci élection présidentielle bu 2024 ak noo comprendre yéexaay bi am ci loi d'amnistie ba ba est-ce que ñun am nañu chance la yéexaay bi man euh, benn mbir rek laay wax mooy actuellement euh, président de la république moo am carte yooyu yëpp. Hmm. parce que il est dans un jeu boo xam ne daal mu ngi calculer mu tant que calcul yi ñuy def vraiment c'est pas à son faveur. Hmm. du jël dogal vraiment euh, régler la question de Karim Wade et de de Khalifa Sall. Hmm. parce que ba léegi il est en train de voir dans quelle mesure on utiliser ñaar ñooñu. pour mu mun a vraiment moom falu en deux mille en deux mille vingt quatre donc loolu lépp mu ngi xool mu ngi de gauche à droite mu ngi mu donc nas boobu moo tax ma ne la man du ma bett sax mu bañ a mu bañ a def lu mu digle voilà. Hmm. jàpp nga ne ñeme na bañ a amnistie comme ni mu ko waxee. mun na mun na mun na bañ a man pour commencer amnistie ma ko. Hmm. <clears throat> parce que amnistie def foroxandool la <clears throat> du nit ngay amnistie. Ah, ay fee ngay amnistie su fekkee su fekkee dafa am koo xam ne dafa jël eh, xalal Sénégal. Hmm. Eh, eh, mu bugg a bokk dañ koy dañ koy bokk lool loolu baaxul donc il suffit simplement ñu réviser. Ah, ñu ngi koy ay disposition code électoral bi rek affaire bi réglé mais ba léegi lu tax waxu si ñu ngi def calcul rek. xool technologie bi mun na utiliser Karim Wade wala Karim kii nañ seet si pour que mu am euh, ñu réélectionné réélectionné en deux mille vingt quatre donc pour man euh, moom tamit euh, le sort de Karim Wade ak Khalifa Donc, tout dépend vraiment de, de, de, de des jeux de calcul, mm. des jeux de calcul du président. Parce que moom, il est machiavélique. C'est-à-dire que machiavélique, mooy lan euh, il se dit que la fin justifie les moyens. Maintenant, euh, la fin, c'est quoi? C'est d'être élu, mais je en, en, Mm. Mais pour Lolo, il est prêt à tout. Mm. Il est prêt à tout, euh, à toutes les combinaisons. Donc actuellement, euh, vraiment, à les combinaisons, la di étudier, parce qu'il est fin politiquement, si Lolo n'y ramène pas. Donc même ses allumettes, euh, tant que Lolo sortira look que vraiment d'aller réviser, euh, disons, les dispositions du code électoral. Mm. Maintenant, euh, Karim, avec ak euh, Khalifa Sall peut-être que mën nañu am loolu su fekkee le rapport de force n'est-ce pas euh, c'est en leur faveur bu boobaa xëy na avec euh, le F24 bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu taxawal ni mun mm. naan mën a combat mel noonu des combats démocratiques mm. pour que ñu génnee disposition nest pas code électoral boobu parce que mm. pour man vraiment il faut que sénégalais bu nekk bu bugg a nekk président. Mmh. mu dem présenter devant les sénégalais. Mmh. et sénégalais n'est-ce pas tànn naa ku ñu ku ñu ku mmh. parce que suñu démocratie bi egg na foofu. te il n'est pas normal qu'on puisse exclure vraiment ay ay ay adversaires politiques parce que simplement euh, da nga da nga jot ne bu ñu demee yow vraiment dañ lay daan mais adduna bi noonu la ah président la république sénégalais jox nañu ko deux mandats vraiment loolu je veux dire que sénégalais desetuñu ko donc bu boobaa pour man li ma koy ñaan mooy mu euh, créer les conditions d'une élection transparente loolu xam naa ne mën na ko ah donc euh, bu su bu su arle te bu boobaa sénégalais yi ah, du ñu fàtte n'est-ce pas acte boobu très bien ñu jeexal ak euh, médiation bi ñu ne Pape Diop mi ngi koy bëgg a tenter diggante pouvoir ak opposition ndax tànki jàmm Pape Diop mën naa am lu mu jur tey ci làngu politique beeg ni mu jaxasoo waaw tant jàmm bi man daal dama ne euh, mën naa ko rafetlu maanaam tey opposition yi ak euh, tenants di pouvoir yi dañu war a toog euh, waxtaan parce que di conflit ni mu rëy rëy jël première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ni mu après les gens se retrouvent autour la table donc pour moi ñun ñu la ñun nañu la donc sénégalais ñun ñëpp ay sénégalais la ñun nañu vraiment waxtaan pour trouver une solution parce que crise bi arrangé wul kenn arrangé wul Macky Sall arrangé wu la yow arrangé man arrangé Sénégalais yi. Mm. parce que chaque fois que vraiment euh, ay yëngu-yëngu am surtout avec les procès juridico-politiques. Mm. donc procès yooyu day tax vraiment école di tëj day tax vraiment commerce yi tëj te loolu baaxul suñu économie donc. Euh, waxtaan euh, si la donc euh, man je je je waxtaan boobu am maintenant posons la question de celui qui veut prendre l'initiative da nga ne Pape mm. mm. que crédible mooy lan Pape Diop lors des élections législatives dafa dafa demoon aussi opposé opposition donc euh, en tant le suffrage des Sénégalais ba gars yi ko fal ko fal ko la dafa jël baat yooyu bokk ko jox ko waa waa waa waa waa nguur mhm. donc ci penses que sénégalais ñi koy déglu ñi koy xool loolu bu leen léegi damay dem damay def médiation pour que ni ñi am waxtaan mais duñ ko woolu donc dañu am problème qualité ak moom c'est un problème de crédibilité donc mhm. pour man Sénégal ñàkkul mu am doom boo xam ne daal vraiment nit ñi wóolu nañ ko wóolu na ma ne fii boo xool rek am na koo xam ne daal koo xam ne daal opposition actuelle de pouvoir dañ ko wóolu mm. donc parce que parce que amoon na ndem euh, si yàlla euh, disons Amadan Sako te wóor na ma ne fii am na nañu ut kooku kooku ñàkkul donc koo xam ne mu na def consensus à la fois opposant ak euh, tenant du pouvoir mu jiital n'est-ce pas mbir mi mu jël initiative boobu mm. mais su fekkee Pape Pape Diop au devant bu boobaa ñu ñu bëre ñu ne parce que euh, vraiment euh, wóoluñu ko te nit moom bu ñu la moom même su lu baax la. Hmm. ah loolu moo dama ragal euh, mu nekk échec. Hmm. mais jàpp nga ni dialogue politique mën naa am malgré fi tension réew mi toll ñuy jàpp ay militants Pastef yu bëree bëri Ousmane Sonko jëm ci ñaari procès sax yu mën a tax du bokk ci élection ni ñu ko waxee malgré loolu yëpp waxtaan mën naa am ba déggoo sax ci réew mi ci sa waxtaan mun am si kaw euh, vraiment su fekkee président de la république koo xam ne moo lif ñëpp moo jiite ñëpp def ay jéego jéego lu njëkk bu mooy lan xale yi bu mu bu mu bu mu kaso yi mu génne leen hmm. bu leen génne rek <clears throat> loolu day participer ci tubaab wax la discrimination hmm. parce que tant que xale yi ñu ngi si biir kaso yi nga ne da ngay woote waxtaan hmm. du sotti du sotti de mais su fekkee yow da nga def jéego dans ce sens en se disant ah man daal fu ma ne daal Sénégal rek moo ma soxal président ne Sénégal rek moo ma soxal bu boobaa mu génne xale yi n'est-ce pas prison parce que du fensu seen place hmm. bu ko defee rek mbir mi fekk ko n'est-ce pas si waxtaan bi hmm. parce que avant tout c'est le Sénégal Sénégal moo ñor ñëpp moo ko ñor moo ñor ñëpp donc su fekkee loolu dafa bëgg a moom vraiment ñu créer les conditions d'un dialogue mm-hmm. condition boobu pour man vraiment ça passe par des actes qu'il va poser mm-hmm. par exemple le fait de libérer ces enfants ñoo xam ne dañuy fees tel si prison yi mu leen mm-hmm. vraiment en ce moment waxtaan parce que avant tout vraiment amul réeroo waxtaan ñàkk ñàkk ñàkk waxtaan moo moo fi am mm-hmm. donc bu boobaa vraiment dina dina dina dina dina yëkkati Sénégal mm-hmm. yëkkati boppam yëkkati Sénégal mm-hmm. foofu la ñu koy xaare très bien jërëjëf Bakary Domingo Mané amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni taskatu xibaar nga di ko jàngale itam nekk analyste politique ak expert ci wàllu communication politique jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm jërëjëf jërëjëf